fii la bët yam yaayu imaam yi kàddu gaango euh, ñu jël ko daal di euh, euh, dem ba régie balaa may rek jox plateau bi ñu ñu àddu dañu dem ba régie bu fekkee ne bi yemb na Serigne Aïdou Keita mu daal ñu ko tegal ñu daal di ko seetaan déglu ko ñëwaat ci plateau bi. dina demoon Touba. tubaab ba ne lawet ne léegi dañu dégg ne da demoon Touba. ma ne ko waaw. mais ma ne ko waaw mu ne ma loo fa doon wuti. mu ne ma loo fa doon wuti. ma ne ko sama bopp. ma ne ko sama bopp laa fa doon wuti. mu ne ma waaw lan nga waxanteel ñoom. mu ne ko waaw ba nga demee ci sëriñ Modou Moustapha lan ngeen waxante. ma ne ko ndax su ingénieur ba su monseigneur jóge woon Dakar. mu ne ko ndax moo monseigneur bële pa bële nekk Dakar bu fa jóge woon. ñëw fii ci Ndar. ñëw fii ci Ndar. dugg ak moromam mi fi nekk. bopp labbe bu mag bi nekk fii ci ndar. ci jàngu bi ci biir jàngu catholique yi. ñu tëju wax seen soxla ndax su génnee daa ko laaj lu ngeen. ñu tëju wax seen soxla ndax bu génnee daa ko convoqué sa bureau bi naan ko loo doon wax. mu ne ma déedéet. nee mu ne ko déedéet ma ne ko kon téyel sa lam mu ne ko kon téyel sa lam mi ci sama yooni Touba mu ne ma dégg naa jox nañ la xaalis mu ne ko dégg naa it ba nga fa demee jox nañ la xaalis ma ne ko foofee lu ma fa fekk maa moom mu ne ko na ma loo xam ne waaye nag ba ma demee day terale na ma loo xam ne moo ëpp àdduna ak li ci biir moo ëpp àdduna li ci biiram loolee loolee ci laa am fitu ci laa am fitu nga représenté gouverneur fii nga représenté France toog fii may Abdoul Aziz Simple may Abdoul Aziz Simple ngay joxanteeg ay man man ay kaddu ngay joxante wuuteeg mu ngoog yaakaar naa ne dëgg lañu kàddu yooyu nga xamante ni euh, moom kilifa gi fësal na ko maam Abdoul Aziz Sy Dabakh euh, Malick euh, fan yi ñu weesu rekk ñu doon ko fàttaliku ak kàddu yi am solo yi nga xamante ni mu doon fësal si pénc mi. kon ba léegi euh, kàddu yooyu day des mu mel ni beneen euh, côté la génne bi yoon mm-hmm. jëm ci li nga xam te ni moom mooy këru diine yi ak euh, ni ñu li ñu seq jëm ci Tiwaawan jëm ci Medina Baye jëm ci mm-hmm. Touba ak yeneen ak yeneen i kon këru diine yi nekk ci Sénégal gi yëpp fépp foofa dem rek day mel ni ay mbokk lañu ay ñu bokk lañu waaye tamit ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñoo ñoo xam te ni jëflante nañu rafet ci seen giir dund te loolu ba yaakaar naa ne ba léegi moom mooy euh, dox fii ci mim réew ndax euh, da ngay gis sax léegi tendance bi nga xam te ni moom moo am bari na lool euh, léegi ay waykatu diine yoo xamante ni dañuy dugg beneen kër génn fa jaaraat beneen kër génn fa kon yenn kàddu yi nga xam te ni ñu ngi koy faral di gis ci réseau sociaux yi fan yi bu jibee kaw rek euh, dina indi jafe-jafe te loolu moom yaakaar naa ne Sénégal ba léegi dundaguñu lu ni mel kon ñu bàyyi ko ni ko mag ñuy euh, bàyyi woon loolu lu ci am solo la looloo tax ñu indi kàddu yi euh, ki nga xam ne moom mooy mam Mame baax fas yéene ko partage ak ñi nga xam ne ñoom nañu ñu bokkal plateau bi ñu door ko ak Cheikh Bara Ndiaye mu njëkk ñëw kon ñu bàyyi la tuuti nga ñu dem si Souaïbou Diop Souaïbou yaakaar naa ne déglu nga kàddu yi ñu euh, ñëw ci li nga xam te ni fa lañu ñu féete ak euh, këru diine yi li nga xam te ni moom lañu ñu partagé yëpp. d'accord mm-hmm. jaajëf euh, Seyda Fatimata Sey Ndir <coughs> ñaanal ñëpp kenn ku ci nekk rek fa nga ko bëgg a defee ji ci gàmm gi yàlla yóbbu la ci yoonu yoonu jàmm. amiin ñu bëgg dem safar si ñu dénk leen. Mm-hmm. la sëriñ Fall waxoon rek ni nikk bu dëgër ni jàkk bu ne mm-hmm. yàng nga ni yoll bu ne tàcc nga ni tekk. dana ci solo ñu moytu ak oto bu baaxul ngay ñog-ñogi di daw ndax ñu ñu yëpp ay doomu aadama lañ te accident yi bari na tali yi baaxul kon nag buñ ci doolee oto yi baaxul nit ñi wane xamadi wala mandité du sotti nañ yaatal xol yi rek dem ak ñëw nga indi nag tey koo xam ni mm, ba ma naan régulateur la ci société bi Cheikh Bara mas naa ko dégg muy dafa benn baatu français bu mokkaloon jëpp ca daara ja fàttewu ko waaye bi ma demee ba xam régulateur lan lay tekki ci tubaab mm-hmm. ci wolof mm-hmm. day ne woon dama dama ne woon Serigne Abdoul Aziz mooy régulateur ci société bi. Mhm. parce que fu mu mas fekk lu ñaaw rafetal na ko. Mhm. fu mu mas fekk dëgg wax na ko te du vexé. Mhm. defe naa bari na Sénégalais yi benn vidéo bu ñuy dégg muy wax bay wax ak Abdou Diouf bay wax ay jafe-jafe yu ne ci réew mi ba nit ña tàccoo gis nga kàddu ga mu yëkkati ni leen amu leen benn yar amu benn teggin ñëw ba ci jàkkee yàlla ji di fi tàccu. waxuma pour ŋàññ Abdou waxuma pour neexal ab opposant wala ab opposition. damay xool li Sénégal yi dund ma wax leen ko. su ma paree dellu ci la ma nekkoon. mu mel ni bari na lu doon xew ci réew mi am pecc la mu ñaaw ba su mu jaral ko mu jege këram dem ba pale fekk fa abdu juuf ni ko dafa am pecc mu ma mhm. déggoon muy xew ci réew mi pecc ma xam naa xëy na mu ñëw sama xel. Mhm. lambada. Mhm. voilà Abdou Diouf ni ko luy lambada ministre yi ni ko am pecc la mu ne ci réew mi. Euh, Abdou Diouf ni ko mënoon ngaa toog rek bàyyi te yónnee wala nga woote ñu fajal la sa soxla. Abdou Diouf noonu la foofu lañ jaare ba censuré pecc moomu doon làmbada ak nañ ko doon defee mhm. kon nga xam ni réewam lépp a ko yitteeloon lépp a ko ñoroon ba ci diine ji daan seex ay jéegoom di seeti kilifa diine yi fu ñu mën a nekk ci réew mi mhm. daan ko jaral muy ànd ak ñam daan àndal ku fi mas a la ci réew mi nga am naqar wala bànneex seeti na la waaye li ci am solo nag mooy daan jëfandikoo njàngaleem Seydi Hadji Malick si di ko jàllale ba taalibe yi a jot wird jël wird mu tasaare message bi fu si waaye nag loolu tekkiwul woon nag Seydi Hadji Malick Serigne Abdou daan jël ay way yu Barham Niass daan jël wayu Seexul Xaddim di ko jàngale di ko firi di ko dugal ci bopp nit ñi te loolu wàññiwul dara ci digganteem ak taalib yi nga xam ne mu ngi leen di yee seen diggante ak seen borom moo tax ci sama benn taalif moo doon wax ni euh, Serigne Abdoul Aziz daana fa euh, daana fi wax ni Euh, moytu leen jari tariixa di ko def eh, jaasi di ci dog seen bopp morom. Mhm. moo tax ma ne amoon na bis mu waxam fi waxam ju rëy. wax joo xam ne xol bu ko dégg war na tooy. Mhm. ne ay réew mi bu nekkoon ci aw xal mu góoxum ndox mar ñu ni ko naanal mu xam ni lii bu ko naanul ñàkk bakkanam kon mu yàbbi ko ci xal wa ñëpp am jàmm. Mhm. fii la dëkk di Sénégalais bëgg réewam daa jàngale. ba wuy ji boroomam. nit kooku nag Sénégal bu ko ñàkkee dañoo war a tiir ay leçons yu bëree bëri ci moom. sëñ Abdou moom da dem Touba biir Touba ci salon fekk fa ñu wekk fa photo Sëñ Abdou mm-hmm. da ngay dem ci seen ay biir nag taalibe murit xaqan murit saadix mu jël photo Sëñ Abdou wekk ko ci biir mm-hmm. li ko mayoon loolu nag loolu lu yàlla mën a may la ko mën a am mm-hmm. nit baax na fi ba jóge fi nit liggéeyal na boromam ba jóge fi mais li Sëriñ Abdou mayoon loolu kenn musul gis lu mel noonu gis nga discours bi mu yëkkati woon ci diggante keroog bi nga xam ne Lamine Gueye Euh, chef de l'État yi mhm. di ko fàttali kilifa gu nekk fii ci réew mi nga xam ni bis bis bis bu ne euh, du ñàkk nga ñëw jaar file ak discours ba mu fa yëkkati kon daal mhm. Fatima mhm. te indi nga koo xam ni réew mi yëpp ku ci nekk mën ngaa jël ci jikkoom benn jikko te boo ko jëlee incha allah da nga am am lanteeg sa borom ndax nag euh, nit la koo xam ni yoonu tubaab yi muy nettali pour wax ne yàq dafa yàgg ci réew mi gis nga keroog ba mu nettalee lii ba mu fa jógee am na ñoo xam ni góor gi daa naax di eh, nekk ginnaaw sëñ Abdou Khadir waaw ginnaaw ba lu tax mu wax discours am bi ñu ni mhm. góor gi dafa naax rek mhm. waaye xam nga ne lii du discours am mhm. xoolal ma kon yàq ndeke yàgg na fi eh, lii nag la soxla te lii la ñuy séentu ñu ngi koy ñaanal eh, di nuyuwaale doomam bi naan Serigne Badou si mosuma ko gis xaw ko mais doxinu wuy juróom wi la yor waaw koo xam ni am lu nekk tukki fu nekk ci àddina bi mais boo ko fekkee lu lu simple lay sol te discours yu am am solo lay yëkkati ci réew mi defe naa ñëpp déggoon nañ ko wal fajiri woote woon na ci mois de mars bi bi coow li bare mhm, te discours bu am solo bi mu wax mooy euh, tontu kilifa euh, ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy noonu xam nga booy dox ci euh, ci am réew di dem ba ci kanam di nga gis ñoo xam ni am na bët bu buñ lay xoolee te lu ci am solo la ñu conserver relation yi nga xam te ni moom moo am mm. ci diggante kër yi rawatina jamono ji ñu toll nga xam ne euh, jaxasoo na lool. Mm-hmm. Euh, Cheikh Bara euh, ñu daal di la jox kàddu gi nga ñëw ci li nga xam ni moom mooy kàddu yi maam Abdou Aziz daal di fësal tey jii sax nag bës la boo xamante ni ñu ngi fay xaar tamit njiitu réew mi Macky Sall fa la fas yéenee dem teew mu mel ni nag si foofu noonu sax dina am yeneen kàddu yoo xam ni dina fa fës waaye lépp rek jëm ci cohésion sociale. waaw jërëjëf yaa Seyda euh, thème bi am na solo tey it toujours yaa ngi koy dëppale ak actualité. Mm-hmm. xam naa fi son bu jàllalee rek foofu la ñuy tàmbalee mooy maam Abdou moom boo nee maam Abdou da baax rek dafa am mm, automatiquement nu sa xel di dem ci na meloon. Mm-hmm. mooy moom bi mu fi nekkee xalifa la woon boo xam ne du woon xalifa. waa kër Sidi Hadji Malick wala muy xalifa njabootu euh, Cheikh Ahmada Tidiane Serif waaye moom dafa jàppoon ne ummatul islam bi yëpp. Mhm. moom mooy seen kilifa. tey loolu la doon doxe di ko waxee demoon na ba romb sax ummatul mii bi waaye dem na ba képp kuy doomu Sénégal rek. maanaam sa xàq moom ci maam Abdou la koy jël ba mu mat sëkk. ku digganteem ak ñoom yaa sant càndum ak ñoom yëpp gis nañ ko. kon nag euh, te itam loolu nag du maam Abdou dong. xëy na mm. maam Abdou dafa dajeeg jamonoy audiovisuel maanaam mm-hmm. caméra ak foto ak film ñu mën a waxtaan ñi def ko ci band tegaat ko waaye ku le maam Abdou nekkoon dalay lay wóor ne loolu la sëriñ Babacar si nekkoon muy uuf ab jullit la xam mais xamul keneen ko dul ab jullit te loolu da lay wóor ne ñoom sëñ Basiiru ak sëñ Muudu Moustapha ak Baye Niass ak ñoom ñëpp ci loolu lañ nekkoon ba ci alaaji Malick ak sëñ Touba bañ fi nekkee looloo fi nekkoon mm-hmm. euh, sëriñ alaaji alxaaji mu fi jógee sëriñ siiru Mbàkke bi muy dem di ko jaale ji muy wayjuru sëriñ Muntaxa mii defe naa ay fan la fa def yàpp naa ne sax ba mu fa jógee di ñibbi Touba. ñam doon jaale ji damaa jàppatul tur yi waaye ñoo ñooñu dañoo àndaat ak moom demaat Touba ma far defaat ko ak ngan da xam ne kon ay ay maa la gën ak yaa ma gën doxul woon seen diggante. Mm. Euh, Touba gis naa fa sëriñ Mansour Mbàkke te mag la maanaam paa bu màggat ñu tuddee ko sëriñ Mansour mii nga xam ne sëriñ Mansour Mbàkke la tudd Baye mii. am na doom joo xam ne Nigéria la ëpp lu muy nekk waaye sëriñ Abdoul Ahad la ko tuddee. Mhm. fii ne ci mag ñi la bokk bu magul ci doomu bàyyeet ci mag ñi la bokk. Mhm. boo ñëwee fii ci laay yi ni fekk fi Serigne euh, Cheikh Ahmadou Mbacke fekk fa yeneen tur yoo xam ne ci yeneen tarixa lañ bokk. Mhm. Euh, bu yàggul rek fekk naa maa ngi seeti sama benn bàyyi ku ñuy wax sëñ Mbaye Ndiaye ismulaay la sama nga xam ne taalibi sëriñ Babacar bu mag la dafa gaañu sax jamono yee mu am doom ju mu tuddee sëñ am doom ju mu tuddee sëñ waaye ñuy xeex mu naan mën de ko ma ci war a faral laa xamut waaw <laughs> sëñ Fallou sëñ Babacar bu ñuy xeex man nu ma war a def sax laa xamut <laughs> waaw nga xam ne kon euh, dafa am lu dëgër lu mag ñi tabax ci ñun mm-hmm. loo xam ne bu ko ak ndawee yàq bu ko ak ay ay tiktok yàq mm-hmm. bu ko ay gàmmook màggal di yàq mm-hmm. lu dëgër la loo xam ne ñu ñun tabaxaluñu ko suñ bopp ni ñu juddoo dond ay tarixa dond ay ay mbir noonu la ñu juddoo dond suñu diggante ak Tiwaawan nii sëriñ mm, maam Abdou wax euh, Cheikh Abdou sëriñ Sidi Makhtar Mbacke toog na ak korite goo xam ne bi mu koy wax sama digganteeg moom matul juróomi nit doxu fi. Mhm. mu ne bëggatumaa dégg fii ci Touba ku naan Tiwaawan ak Touba. Mhm. l'islam bi lépp benn la fu Tiwaawan wareeti ku ko njëkk a dégg ci Touba na nga wari ku Touba waree ku ko njëkk a dégg ci Tiwaawan na nga wari mhm. te loolu bu fekkonte ne loo xam ne dëkk ba nanguwu ko wala Sëñ Touba nanguwu ko bu koy wax këram la koy waxee waaye du ko waxee ca kanamu ja mhm. te bi mu koy wax keroog ku Sëñ Touba njaboote yaa ngi ci jataay ba mhm. kon loolu dafa nekk yu dëgër yoo xamante ne kenn mënu koo dindi ba ci way yi nga xam ne dañ koy jël di ko way man jàpp naa ne sàmbub man xam naa ko bu yàgg defe ne waykatu murit la am na beneen mbokkam moo xam ne ma nga ñu koy wax mhm. soxay bu mbub mhm. alaa yaa rasulullahi bii bu koy way mm, moo ko dàq ñoom papa mbay donde mhm. ak ñoom ñoom ñi loolu euh, la sëñ Moussa Ka waxoon rek ne way wolof ak yu yaaram wayi yëpp a yem lu jóg ngir rasulullahi baatin ba am xorom maanaam euh, ñun ñooy dem dégg dara ba moomale ko benn tariixa waaye kii way moom yonent bi sallallahu alayhi la way te yonent bi moom bu fekkente ne moomam way wi rek kon mhm. julli ñëpp koy bokk mhm. bari ki dem dama taxaw ci jaaykatu kurus bii ci suuf ci suufu Walfadjri mhm. nga xam ne taalibe Baay Ñas la bi ma ñëwee ma ne ma di jënd kurus ma jub ko rek mu daal ne wax kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniina ma ne ko ah yéen loolu moomoo leen ko ah euh, bàyyil bàyyil bàyyil suñu affaire yooyu ngeen ngeen di jël quoi mu ne ma ah déet man man ay alxuraan laa wax te man fàtte naa ne man bi mu ko waxee xasiida wakaana xaqan gu sëñ Tuubaa rek la sama xel bi dem fàtte woon naan loolu ab aaya la sax man man pour man xasiida wakaana xaqan la may tooñe ma jub ko ma di loolu ab aaya la de ma ne ko waa xoola rek maanaam sëñ jël na aaya bi bind ko man fàtte naa ne sax ab aaya la pour man wakaana xaqan sëñ Tuubaa moo ko moom <laughs> te fekk moomu ko aaya alxuraan la loolu loolu rek la demee waaye daal euh, sëriñ si moom ay sëriñ lañ mhm. lépp lu ñuy digal buñ koy wax ñoom xëy na liñ bëgg a wax ñoo ko xam. Mhm. ak li ñuy soññee ñun ñoo ñoo ko xam. Mhm. waaye ñun daal ay taalibe lañ maanaam ñun waxi sëriñ amuñu ci commentaire liñ xam mooy ay jullit lañ. lislaam ji daa ñëw pour boole ñu waaye ñëwut pour tàqale ñu mhm. tarixa yi daa ñëw pour boole ñu waaye ñëwut pour tàqale ñu gis nga fa fuufa yi ñuy def boo génnee Sénégal ñoom dañ naan Afrique maanaam Afrique yëpp lañ boole ne ñoom dañoo man loolu tant que duggoo Afrique rek doo mën a gis teqantal waaye ku toog fële di gis njabootul islam li muy wax mooy tasawuf rek maanaam taalibe ña seen yëg ñun ñoo mën a tàqale suñ bopp mhm. comme ni nga ne waa Touba ma dem Touba nga ne man daaru min nam kii ne sëñ Abdoulaat kii ne diw loolu ñun murit yi ñoo ko man mhm. waaye kii dul murit lim xam mooy ñoom ñëpp waa Touba rek mhm. kon nag ki dul ki dul ki dul ki dul ci tasawuf moom xamul alaaji Malick ak Baye Niass waa tasawuf rek la xam kon ñun benn lañ kañ nit mënoo yàq loo bëgg a yàq ci sa jëmm rek fitna lay doonaat ci yow. dëgg la euh, jërëjëf Cheikh Bara mu mel ni nag euh, comme ni ñu waxee léegi rek ci réseaux sociaux yi lay xewee te lépp ndaw yi ñoom ñoo koy def day euh, dañuy ñëwaat rek laal tuuti ci kàddu yi ki nga xam te ne moom mooy Cheikh Al Islam Baye Niass mi wax ci ndaw ñi ndax wax na ci avenir um réew ci ndaw yi ci loxoy ndaw yi lay nekk waaye du n'importe kel ndaw day nekk ndaw yoo xamante ni yàlla may na leen ñu doon nit ñoo xam ni dañu am li nga xam te ni moom mooy ambition bu tamit euh, ñu euh, euh, bëgg li nga xamante ni moom mooy seen réew la waaye tamit ñeneen ñoo xamante ni ñooy ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu soxla bokk na ci ndaw yi nga xamante ni tamit dañuy nekk ndaw yoo xamante ni dañoo dañoo nekk ay not ñu doté de conscience léegi Sandiogu ndaw yi ñu doté de conscience jëm ci li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yi tey ji indi nañu fi loo xamante ni dem na ba léegi mu ngi yàq lu bari bay dugg ci këru diine yi tey lan mooy doon li nga xamante ni moom mooy solution bi waaw man de damay jàpp ni ñoom ñooy yàqu rek waaye mm-hmm. yàqu mm-hmm. parce que euh, <laughs> xam nga boo seetee réew mi mm-hmm. euh, saa yu ñu bëggee regle tey démb la ñuy dellu ngir régler tey kañ la tey di regle ëllëg c'est que loolu la ñu war a ñun dañu waroon fexe ba toll foo xam ne dañuy regle ëllëg parce que ñi li ñuy wax nii dañ ñoo ñun tey dañ ñoo régler sunu nekk euh, kañ la ñuy wax loo xamante ne bi ñun ñuy site ñoo xamante ni bi tey bu problème amee ñu mën a dellu ci ñoom ñu nekk ñoo xamante ni bi ñoo nekkandoo loolu mooy li nga xamante ni bi pour man ñi fi ne loolu lañ war a bay comprendre nga comme ni ñu delloo ni ci Mame Abdou nga xamante bi ñu fi nekk nii tey bu problème amee rek dañuy xool ne diw nee na li diw nee na xam nga mooy li nga xamante ni bi moom la euh, Cheikh Sidi Mokhtar waxoon ci Cheikh Bara cité ko fi léegi bëggatuma dégg coowal lii ak lii te defe naa ni depuis lors problème boobu sunu borom mi ngi ñuy suturaal réglé na ci réew mi daanaka bu ñu en tout cas majorité bi moom murit tiijaan moom ñoo bokkandoo jour boo xamante ni bi moom la ñuy woor moom la ñuy wori depuis loolu am ba nëga moom moo tax euh, loolu moom gis nañ ni am na léegi nag ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi nekk ci internet bi di concurrence ak di wax yenn wax yi man dama jàpp ni ñoom dañoo xamut te ñi ngi dugg ci terrain yoo xam ni terrain yu garaaw parce que li nga xamante ni bi tey moom la Mame Abdou wax nii ci vidéo bi rek leer na nañ comprendre nga te jamono ji koy wax it li doon expliqué noonu loolu aussi amoon na nit ñi wax yi nga xamante ni bii moom lañ daan wax comprendre nga am na wax yoo xamante ni mais gis nga <laughs> bu doon ñoom dañuy def di seet naan lu ci nit ñi di wax kon duñ ko def bu doon tey bi muy wax lii mi ngi doon seet nit ñi nan lañ koy gisee kon peut-être du ko def mais tey gis nga lii li mu mën a régler donc képp koo xamante ni ki taxaw na di la bëgg a wax ne la murit beeg tijaan beeg lii boo delloo ci maam du kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko rek mu ne fang nga xam ne ab vidéo la boo xamante ni bi bu leer la sa la nga xam ni moom nga doon wax wala la nga doon def day daal na sax moo tax depuis quelque temps nga gis tamit aussi tamit réseaux sociaux yi am na ñoo xam tamit ñu ngi fa di liggéey bu baax. parce que bu ñu gisee ay dérive am dañuy dem jëli ji. ñëw commencé di ko tegaat ngir fàttali ña nga xam ni ñu ngi ci dérive yooyu ne leen hé yem leen mbir mi du lii lii la waaw parce que ki nga xamante ni kii moo wax wax ci. kilifa la goo xamante ni gi réew mi ñëpp reconnaître nañ ko amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayeen amul ñëpp a mhm. reconnaître euh, maam Abdou fi nga xamante ni fa la ko sunu borom rek ñu bëgg ko aussi mhm. tamit donc léegi yow say wax même lu mu mënoon a doon say wax dootul safe parce que wax jii moo ñu saf point waaw wax ji moo ñu saf keneen ku wax leneen wax jooju du ñu saf ñun ah. wax ji nga xam ne moom la maam Abdou wax lii moo ñu saf te moo ñu jik mm-hmm. léegi leen leer na jeex na voilà mm-hmm. waxoon jamono jooju wax nañ lu ñu xamul ndax wax ju leer nañ la ajaratu mm-hmm. monde bi fu mu toll nii dafa mel nii nag euh, Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam te ne yeneen dëkk yi bu ñuy xool dañuy ñee ci mm-hmm. ni nga xam ne noonu ñu euh, dëkkee cohésion sociale bi mm-hmm. amul euh, xaaj ak seen ci diggante këru diine yi rawatina ñi nga xam ne sax bokk ñoo ñoom diine ñu ngi ci jàmm ak ñoom mm-hmm. tey jii ñu dem a dem ba affaire bi di effrité wu ndànk-ndànk fan la ñu jëm ak tendance boobu Euh, Fatima kenn xamul fu nu jëm gis nga ñee boobu ngay wax mhm. te te sunu naatangoo ñi nga xamante ni ñoo ñu woon ñeewee ñu ko mhm. Mhm. defe naa ni am na ñoo xamante ni dañu ko bëgg dindi mais tuuti nañu ci parce que loolu dafa jiitu seeni juddu man man damay damay wax ni ku mel ni euh, Ibou Seyni Laay kooku daf ma daf ma ay waxam daf ma daf may dugg des fois xam nga lu tax parce que ni muy ni muy ni muy def ci këru diine yi la bu waree yëkkati ni muy yëkkatee portable bi nga may wan ba <laughs> yéen lekk heure bi yéen ñett buy buy buy yëkkati ay kàddoom. Mhm. da ngay gis ni muy rafetalee ci yeneen këru diine yi. Mhm. dem naa sax ba laayeen di des fois da nga leen di gis ñu yëkkati yeneen way yoo mhm. xamante ni. du wayu laayeen. tey jii nga gis euh, benn kuréel maa ngi la koy wan sànq vidéo bi <laughs> ñu yëkkati loo xamante ni wayu tijaan non ça moo may distraire quoi ah. ñu yëkkati ko muy loo xamante ni dafa am solo xam nga man lan laa wax loo maîtriser wul. wala loo xamante ni mag ñi ñoo ko def bàyyi ko fi. ku ko bëgg yàq yow yaa yàqu. ku ko bëgg yàq. yow yaay yàqu kàddu gu am solo nga tëjee euh, ajaratu ku ko bëgg yàq rek yow yaay yàqu kon ñu lay jaajëfal également euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi yëpp te jot a joxe seen euh, parole ñu ngi leen di jaajëfal également yéen ñi doon seetaan boobu ba léegi ñu ngi amati mbégte doon partager ak yéen lii di kàddu yooyu ñu si bàyyi xel bu baax a baax suñu mag ñi daal defar na ñu bàyyi fi kon ñun nañ ci jéem a roy rek te dem kanam ndax boobu ba léegi jàmm rek lañ ciy am kon ñu siy nuyu bu baax Omar bun Xataab Gueye ah bu baax maa ngi koy nuyu di ko ziar ngeen job également di leen jox dig daje beneen euh, alxames incha allah ak beneen mag. ñu dem ci gàmmu geeg jàmm. waaw incha allah ñu leen di souhaiter un très bon gàmmu suñu wax nekk rek ak foo ko gàmmoo rawatina diggante Tiwaawan euh, Mbaak euh, fi nga xam ne moo di Kaolack ak ci biir ville religieuse yeeg bi Dakar foo ci gàmmoo rek yàlla yàlla nangu gàmmu ñëpp ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa pajum cosaan.